5M TV Sénégal. chaîne di jox xibaar yi leen ci anam yu wér ci mbokk internet yu 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bile ñu daal di ànd ak yéen ci xibaar yi la ca gën a fës ginnaaw conseil de ministres bi nga xam ne njiitu réew mi Macky Sall daal dina koy jiite nag ci àllarba bi. foofee nag ca pale ba mu mel ni lu jëm ci loole dafa àddu woon ni nañu rek topp ñi nga xam ni rek ñoo def ñawteef yu mel ni lee rawatina ci manifestation yu ñu jugee mu ni loolee rek ab enquête judiciaire lañ ciy daal di ubbi mu mel ni nag lu ñu mel topp ñu ko ba tey rek moom leneen sax la ñuy gis rek ci loo xam ni moom la ñuy toppee Ousmane Sonko. ndax fi mu nekk nii ñoom la ñu daal di fësal rawatina nag daan bi nga xam ne daan nañ ko loole la ñëpp di waxtaanee waa itam loole rek ñoom tamit la ñu daal di jàpp fi mu nekk nii ab stratégie bu ñu rek mën a fësal ci askan wi lee mu ni loole itam na rafetul. rafetu wuñ ko benn yoon rawatina ci mbir yu doy waar yi nga xam ni moo xew ci réew mi leen ñu koy gis suñu ay gët te nag képp ku nekkul sénégalais sax moom di ko daal di ñaawlu rawatina luy gën a nasaxal suñu wàllu démocratie bi leen tax na nag ñi nga xam ne ñoo féete ci wàllu diplomatie bi fii ci Sénégal ñoom daal nañ ci àddu ji wax ni sax nag moom France 24 xam ngeen ni bu demee rek ba daal ci yëy bi ba gis rek police nerve yi nga xam ne ñoom la àndaloon ñu ci rek daal di samp ay laaj laaj boobee ba tey amaguñ ci tontu mooy situation yoo xam ni dañ ko ñaawlu waaye patt pattiré la ñu gën a nemmeeku ci réew mile mu ni kon communication ba ñuy def rek war nañ ko mën a maîtriser maanaam xam bu baax rek lan la ñuy wax kile di papale ñoom moo fësal kàddu yooyee